dañuy fay juuti ta lu ñu fay mi ngi dem ci keesam kon ñun mun ñun moom war ñoo mën a jàppale ndaxte moom ci suñu boor ci suñu biir électoral presque moom ci la nekk kon marché bi lu mu dee moom war na koo mën a ñëw defar waaye duñ ko gis duñ ko dégg benn yoon lañ ko gis bi mu jëlee bi mu gañee maire bi ñëwaatu fi ba léegi délégué bee fi nekk bu góor bi ak bu jigéen bi ñun nag duñ ko bàyyi parce que ñun dañ ñu fédération la ñuy def fédération bi nag liñ ciy jooy mooy yéex a juddu gi ne su teeloon su teeloon bun fu mu bëgg a dem dina fa dem. président de la république moom la ñuy tàllal loxo bëgg ngir yàlla ak yonent bi mu ñëw wax lim ñu lim ñu digoon mu ñëw def ko ndax moom du ne xaw ma bun ndax ñëwal na fi tànkam comme moom du xaw ma bun ndax ñëwal na fi tànkam te bun gis naa ay jafe-jafeem barax baa ngi nii agresseur yaa ngi nii ndox maa ngi nii su ñu ñëwee bu ñu lay toj bu ñu toj dañuy toj juróom benn kër bàyyi la fa yow dong yow ca digg ba nga dëkk ak ñoom moom la ñuy wax ne ngir yàlla ak yonent bi moom mu ñëw defal ñu buun def Kër Massar ville defal ñu buun commune ñun moom lañ koy jooy nañu sarax ngir yàlla ak yonent bi ndax ñun sonn nañu te koo xamante ni électoral bi mu yor saa yoo bëggee falu fi ngay ñëw ba mu fal la nga dem toog jaadu na nag kooku nag bu amee fulla mu jóg taxawal boppam ne nag mën nañ lii laa bëgg ci loolu la ñu nekk fi mu ne nii nekkuñu ci benn dañu dañu dañu ne nañu takkonte nañu yëkkateendoo xàccandoo dóorandoo ci li ñuy yëkkateendoo xàccandoo dóorandoo suñu suñu pexe jubee benn politicien bu ñu defalu li ñu bëgg dootu fi duggati ndax nag mënatuñu suñu ñëwee rek tooba ñara sullil dañ ñuy liggéeyloo ba ñu bëgg a dee bàyyiloo ñu ba ñuy bëgg a dee bu élection ñëwee ñu ñëw fexe fexe fexe ba gañe dem toog ci seen commune man conseil départemental la dara dara dara defaluñu ko dara ba dara booloo jeex defalu defaluñu ko ñu waxee ba gañe rek pare nañu dem toogi loolu moo fi jeex dañu bëgg nañu ñëw ñoom ñoom moom seen commune yi keleen day bi nii keleen day bi Pape Moussa Camara def kenn ku ne war nga cee tiré leçon xam ne yow mi lii setal ak liy baaxal bu baaxee sa kër la jëm liy setal nag ak liy baaxal bu baaxee sa kër la jëm kon bay ci say tànk kon kenn waru cee njëkk kenn kon ñu ngi woowaa buun gépp pour ñu mën a génn ndax lii amul dara naxe amu ci politique amu ci dara amu ci kaa ñu nag defar xar kanamu buun ku la woo ku ne demal xar kanamu buun buun ci boppam buun ci boppam buun ci boppam buun ci boppam buun ci soxla na soxla na li mu bëgg li mu bëgg war na koo mën a am ñun bu ñu président di jox bu ñu digee nañu joxal Pape Moussa dina agsi ci ñun ndax ki lay jox te dara nekkul dara di la jox ci alalam soo ko joxee ne ko yóbbul ma ko ci sa ci sama baas ci sama askan ñu ko jottali ñun ñoo sonn ñun ñoo sonn ci loxo yi ñu ñuy jottali te du agsi ci ñun baadoole yi sonn nañu Pape Moussa Camara mi ñuy defal alalam di ñu def jox ci dooleem bu ñu ko joxalee lim ñuy jox dina agsi ci ñun nanu dimbali li lay war a suuli ba bu ñu ko kenn ñaaneeti bu ñu ko kenn neeti waa buun ndax ne ko ko buun képp ko ne buun defu ku ko weddi na nga xool tey Pape Moussa marché bi li ci nekk ci mbali li ci nekk ci salte te mel moom kese kese kese ak yàlla moo ci nekk